ci yéen kaay yi El Hadji dal leen ak ci xibaar yéen yi nga xam ne rek moom la xëyandoo ñu daal di koy ci ñaar fukk ak ñeent yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci réewum Sénégal ñoom kay jamono ji ña ngay Sénégal ak lépp loo xam ne jëm na ci jàngoro covid tribunal maanaam daal test yi xam ne jot nay génn la muy wone neexul dara ci réewum Sénégal yéene kaay gi duñu xamal ndax yéene kaay duñu xamal ne ak lu mën de xew daal Marie Khemesse Ngom moom kàddu yi xam ne rek yëkkati na ko moom kay ma ngay dalal xelu Sénégal yi jàngoro ji ba léegi rek jamono ji ñi ngi koy contrôler ci réewum Sénégal bu dee nag lu jëm ci wàllu ko lal yi maanaam daal Sénégal na lu toll ci ñetti téeméer ak ñeen fukk ak benn ay ak ñeen fukk ak benn yi rek la ñu tëdd mbaw yéene ne ak jàngoro ji moo jaaxal réewum Sénégal ak tolluwaay gi réewum Sénégal leneen loo xam ne jaaxal na jamono ji yeewoo ci réewum Sénégal vox populi yéen kaay duñu xamale ba nga xam ne daal xew na cangajaga maanaam daal teenu pétrole boobee nga xam ne ma ngay tàkk di jax-jax te yéen kaay duñu xamale maanaam daal yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci réewum Sénégal amuñ jumtaay yoo xam ne war leen a may teenu pétrole boobee di jax-jax cangajaga daa di koy xew dafa doy waar lool tey nag raglu am na kenn koo xam ne rek jot na ci am ay gaañu gaañu yu metti yéen kaay gi duñu waa dëkk ba kay jamono ji ña ngay takk ñoqali di daw ndax la gis xamuñu ko teenu pétrole buy tàkk di jax ñàkk gi jamono ji maanaam mooy li nga xam ne rek ma nga nekkoon ca Mbuur seeti feneen waaye direct news yéen kaay xamal ne jàngoro ji ni ji kaay ma nga fay gën di yokk yéen gi duñu xamal ne maanaam daal jamono ji lu jëm ci corona by night la ñuy wax ndax jamono moo ñu xamal googale xibaar wal fajiri yéene kaay ka muy laajte moom moo di Idriss Seck maanaam daal ndaamal kajoor yéene kaay gi duñu xamal ne moom moomee kay tontu na recadré yamale ki nga xam rek moom moo di Mimi Touré les écoles yéene kay kàddu yi nga rek yëkkati na ko dafay ne loolee bu ngeen gisee mu def ko loolu li ko waral moo di yaayam da ko waral nag moo di du waaye nag sëy yaa nga yëngu El Hadji Ousseynou Ndiaye